plateau spécial alxames bi bu 10 jotee en direct lay doon ci seen télévision waar wi TV ak TH TV jàpp leen ko ci YouTube bi di ngeen ko mën a seetaan ci réseau câble bu Touba en direct lay doon bu 10h jotee ngeen ciy ànd ak. soxna maam jaara mooy animé émission bi di ci dalal nongali Moutala Gaye waaye itam jàngkat bu mag ñu xam ko muy Serigne Mara Seck alxames bu 10h jotee en direct lay doon Waarwi TV TH TV ci YouTube bi daw leen gaaw ngeen abone te bës kolos bi en direct lay doon ci réseau câble bu Touba bu ko kenn tardé ku ci bëgg a jokkoo ak ñoom andi ay laaj wala contribution jokkoo ak ñoom ci numéro téléphone bi 77 247 00 59 émission bu am solo plateau spécial waxtaanee lenn ci dundug Serigne la Lahad ngeen ci ànd ak soxna maam Jaara dara du yomb saadin najjini min dayri